onsu bilaay mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim uh, maa ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñooy auditeur ak auditrice su Baol Média uh, di njëkk ci nuyo bi nag uh, suñu xalif ki ki nga xam ne moom moo defar lépp mooy borom mbég mi mooy sëñ mun Muntaxa ah, wax dëgg yàlla di ko sant bu baax a baax a baax ndax euh, suñu cant fu ñu ko tàmbalee mënuñoo xam fu muy yem di ñaanal itam suñuy waajur yëpp moo xam kenn ci ñun ku ne ak ku ñuy bégee suñu ñi nga xam ne seeni waajur jóge nañ leen fi suñu borom xaaral leen aljana ñi nga xam ne itam seeni waajur ñu ngi fi ñu yàgg fi loolu te tey nag day bisu mbégte ci man ak ci yéen ñii ma àndal ak ci ñi fi jóge ndax ay mag magi jëmm ku mel ne maam Sadda Dieng ku mel ne Baye euh, Baye euh, Ba ama du Bari vraiment di nekk lu rëy ci man Baye Modou Bousso Gueye ak ñeneen ñi nga xam ne amoon nañ yéenay ñëw ci ndaje mi nga xam ne waa fans club Baol Média ñoo ko fi organisé ci rajo boo xam ne fay na lu war a ma deux mois te li ñu xamoon ci auditeur ak auditrice ah damay wax rek na parce que def naa ñaar fukki at ci rajo 2001 ba 2020 ab ab ay at la fii bari na fi ñoo xam boo ci génne woon seeni at lu lu néew ci des li ñu xamoon ci auditeur ak auditrice mooy bis boo noppee wax ci micro bi ñu bàyyi la fii am na ñu fi ne ñoo xam ne nii tey bañ fi jógee lañ lañ noppee dégg ñeneen ñi leen ñi nga xam ne euh, doon nañ leen bégee ak naan yaay sama xarit waaye ñii ma gis nag bokkuñu ci ñooña ndax nit ñu am ko la rek wax dëgg yàlla rajo bu fay deux mois ngay organiser def ngeen fi ndaje ci kër maam Sadda mu xumb ngeen def fii ndaje mu xumb man nag awma seen fay dafa am lu sëñ ab laa daan wax tama loolu laa gëm du sant ku ma defalu dara waaye ku ma defal dara dinaa la sant boo ma defalut nag ma maandu ci yow defal ngeen ñu teraanga defal ngeen ñu mbégte loo xam ne mënuñu leen a fay waaye nag li ci kanam rawali man damay gor te du fàtte démb li may wax nii ñii ma àndal ñu ci bari xam nañ ko man du ma fàtte démb ku ma lebal suukar dinaa la fay lem ku ma lebal ker dinaa la fay guddi liñ leen di fayee nag mooy lii ñu yor te ñoom ñu di ko soxla ubbi leen leen seen bunt ci lépp luñ ci soxla nañ leen ko jox yéen ñi nga xam ne yàlla dogal na yéene ci tege di wax ndax garab gu ne am na ay reen kon su ma dee bànqaas yéene reen yi jàpp leen ci ñii nga xam ne yëg nañ leen mu metti lool lu ne ñu di ko wax dañu leen a def lii seen rajo dañ ko def lii te dara du ci dëgg ndax bés dana ñëw wax jot ñoom ñu bàyyi fàtte loolu bàyyi fa seeni seeni kër ñëw yendu fii def euh, safar bu am solo bii nga xam ne gisuma rajo bu ko def ren xam naa sama xarit Fallou Ndong nga xam ne mooy directeur Benno déen defu leen ko ñoom ABD yi nga xam ñoo nekk fa fële ci rajo ba bale ca sama wet sama rajom nijaay ba ñoom defuñu ko kon yéen waa Baol Média ma fàttali ko leen di leen ko waxaat fàttaliwaat leen sax laa leen di wax la sama xarit ba daan wax rek mooy Sidy Lamine askan wi moo yor moo leen di fay te beneen bi ci topp mooy man mbir mi du man damaa taxawal rek waaye bu doon man kese mënumaa animé musique animé jàng waaraate kon lépp yéen la ku ci nekk am na lu mu ciy def kon yéen la gën leen a gën leen a ànd ñu jàppoo te xam ne àdduna kóllëre moo fi am ak jàppalante leneen lu fi waaye def lu dul kóllëre ak jàppalante bu paasee ñetti fan da nga ko réccu ndax da nga xam ne lii teg nga sa tànk foog waroon a teg kon nag yàlla nañu yàlla defal ndam di sant ñëpp bëgguma lim kenn ci yéen ndax su ma tuddee kenn damay fàtte moom te yéen ñëpp sant naa leen sant goo xam ne sama xol